dafa am lu ñuy wax ci pulaar kiwal kiwal mm. maanaam muy dem ca tool ya mm. sàmm picc yi balaa ñuy lekk mm-hmm. euh, mm-hmm. di naan kiwal kiwal waaw nag bu bu demee dafay daal di nekk foofu di jàng léeg-léeg mu nelaw benn jour nag magam mm-hmm. bee ñëw bi mu ñëwee fekk ko mu tëdd mu mel ni kuy nelaw mu jub ko rek Cheikh Oumar jóg daal di taxaw fee mu ne da sàmm di dàq picc yi di nelaw mu jël yat wuti ko am na benn dex bu fa nekkoon Cheikh Oumar jaar ci kaw dex ba nii comme ni ngay doxee ci kaw suuf mu taxaw fale mu ne ko Ahmad Mawnam Arga Ahmad sama mag ah, kaay fekk si ma fi mu ne ko lii manuma ko kaay yow duma la dóor <laughs> ah El Hadj mu ne <laughs> ah rakk buy jaar ci ndox mag te mag te mag fekkiwu ko. te mag fekkiwu ko. ah loolu am na lu loolu am na lu ca nekk. am na lu ca nekk. mu ne ko kaay dootuma la def dara. mu jaaraat ci ndox mi ñëwaat foofu. kon Cheikh Oumar suuf ak ndox. ak ngelaw jàpp ko. foofu rek lañ ci am am na yoo xam ne duñ ci yegg. Mm-hmm. ndax bu ñuy wax dañu bëgg a wax lu ñu bind.